yoon danul si dara. dara mosuma am carton ci biir. bëri na daan defal bon nga xam ne nii moom ngeen laajee avec efficacité rapidité avec détermination ak détermination ba ma daan moom laa daan ànd donc loolu moom euh, joxoon chance boo xam ne bii euh, en tant que Thiessois fu Thiès fu sélection amee au niveau national boobu équipe nationale amagul sax en 57 58 59 60 61 62 63 j'étais toujours titulaire au niveau de l'équipe nationale Antoine 63 l'a raccroché après les Jeux de l'amitié foofu ci ci équipe nationale ndax booba ci lañu def tournoi bi duma équipe yëpp dóor Cameroun dóor Nigéria dóor Niger dóor France éliminé France deux buts à zéro dóor euh, Tunisie en finale jël le trophée la médaille d'or de football su may dégg ñu naan Sénégal mosul am médaille d'or de football mu jaaxal ma ñoo ñu xëy na duñu xam palmarèsu Sénégal Sénégal avec les jeunes l'amitié El Hadj Malick Sy Souris Youssou Ndiaye Demba Thioy et compagnie ñëpp ku ci nekk ñoo bokkoon benn équipe bi Domingo et tout cela alors ñoo nga gagné la médaille d'or football nga xam ne Sénégal mosu koo am te booba it ay ko rek lañu duñu woon ay professionnels yu jógee en Europe di dem di dellu si ay lu ko rek lanu woon fii ku ci nekk championnat ngi nekkoon ci sa sa dëkk ñu tànn ñu indi ñu préparé ñu ñu affronté euh, joueurs yoo xamee ne ñu ngi nekkoon des internationaux yoo xam ne carrément alors donc euh, médaille d'or bi gagné nañ ko wante bul defee ne benn tey tax na ñu am un franc boobu ñu sargal ñu benn yoon ba ñu gagné suñu médaille d'or ba léegi si may wax ak yow du benn yoon bu nu woo pour jox ñu tranga ba pour ñu defal ñu tranga ou pas alors donc fu ñu matché toujours équipe nationale fu ñu matché toujours ñu woo la nga jóg nga jógee Thiès ñëw ab àndo sa man ma ci sanctionné ci sama liggéey ndax waaw man je suis un tourneur tourneur là de chemin de fer bon ñu on avait nekkoon noonu appareil fanweeri machine man toujours l'équipe nationale la ma daf ma daan soxla di ma woo may dem bu amee notation duñ ma man travaille pas nekkuma fi di waa que ne euh, l'équipe nationale wàññi na ma trop ndax fi sama moroom yëpp avancé raw na nanu ma ndax man c'est nation moo ma soxla woon di ma woo mosuñu maa yoon benn ma mosu couvrir. le prince de Thiali lu ko indi woon. le prince de Thiali parce que Thiali c'était un terrain la woon boo xamee ne bu jafe ñëfal ndax dafa amoon ay xeer yi alors foofu Alassane Ndiaye Alou bu daan ñëw dinu seetaan su ma xoolee ci biir ni may demee ni may déplacé wu du laal suuf un jour di joué normalement mu jaaxal ko trop mu ñëw moom ci boppam moom ma surnommé le prince de Thiali moo ma nommé le roi du terrain loolu yëpp Alassane Ndiaye moo ma ko nommé parce que sama détermination moo ma daan jox moom. ak moom. waaw euh, sa passage ci équipe nationale lan moo la ci gën a marqué bu ñu la laajoon tey lan moo la oh. benn fee boo xam ne moo la ci gën a marqué. benn fait bi ma ci gën a marqué mooy bi ñu woowee ñu war a dem euh, en Côte d'Ivoire ci Jeux de l'amitié en Côte d'Ivoire keroog Iba Mar Diop keroog bi ñuy taxaw bi ñu remettre le drapeau national le public dakarois dañu doon sëlox suuf ne sélection bi baaxul waaw du ñu wiyee mais bi ñu fi jógee Ndakaaru dem en Côte d'Ivoire bokk ak Cameroun benn poule bu ñëwee euh, euh, suñu match ak moom c'était difficil ndax dafa gagné match am yëpp. Sénégal gagné match am yëpp en goal différence Cameroun moo ñu ko doon goal différence léegi il suffisait que mu am match nul pour être qualifié Sénégal il fallait que mu dóor Cameroun pour mun a qualifier en demi-finale keroog 4-0 la ñu dóor Cameroun Alassane euh, kii Raoul Diagne mi ñu yore woon gëmoo ko sax ñu tiré en Côte d'Ivoire ñu jox ñu le Cameroun euh, euh, la Côte d'Ivoire avec son équipe ñu jox ñu ko en demi-finale nous avons fait minutes marqué du bi mais malheureusement que l'arbitre ne voulait pas homologuer parce que Côte d'Ivoire duñ ko éliminé partout il ne lui restait équipe bu football moo desoon en tant que pays organisateur tirage au sort moo nu génnee en Côte d'Ivoire la commission moo dem attribuer la euh, euh, euh, la Côte d'Ivoire pour mu jouer la finale ñun ñu jouer loolu troisième et quatrième place. <laughs> bu ñu la doon feebu la boo xam ne ci ci beneen wàll bu la ci. Hmm. metti ah, xam nga fee la boo xamee ne hmm. metti nañu hmm. mais bi ci des ñun du ñu ñëw équipe nationale presque l'entraîneur bi yéen nekkoon foofu daf ñoo indexé woon ndax nous sommes des régions wante may waxu gaañ ne leen bu leen bu leen lamante wu ci loolu muñ leen rek ba ñu dugal leen bu ñu leen dugalee bu soobee yàlla kenn dootu leen génne te loolu mooy li am ba ñu dugalee benn yoon kenn génneetul tu vois alors donc contre euh, euh, Guinée-Bissau Guinée Guinée-Bissau joué nanu euh, en Guinée-Bissau ñun football nu on était sélectionné dem nañu ñu ngi ci banc bi kenn dugaluñu bon bu ñu fa jógee guinée dafa gagné woon à zéro en Guinée-Bissau ñu ñëw ici au Sénégal parc municipal des sports boobu la Sénégal amagul stade gazon parc municipal des sports lañ doon foofu ñu gagné ko par un but à zéro ñu jóge fa ñu dem euh, en Gambie pour troisième match fa lañ ko éliminé waaw alors donc tout ce parcours là def nañ ko en équipe nationale mais euh, man boo xaw ma ñu ci des man jëriñu ma daal daf maa wàññi maa wàññi ndax de c'était sanctionné te fa muy liggéey. quand il a avancement du naan ma yow toi tu n'es pas là je préfère avancer les autres que man ma bañ a avancer di marquer le pas tu ah, jusqu'à présent du la nga xam ne lii rek mun naa ko jëlee ci équipe nationale fi mu nekk mu wane ne lii en dehors peut-être médailles yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati dina ko jox médailles yi médailles yi tout ça mais un père de famille qui a ses enfants qui a ses enfants tout qui a besoin d'être aidé moom laay wax toujours parce que tous nos compatriotes sonn nañu trop sonn nañu ko nous avons toujours demandé à l'État de leur venir en aide pour li jàppale leen ñu jàppale leen jar ko ndax ils ont le drapeau national haut yóbbu nañu drapeau national fii le football sénégalais pour que kenn yóbboogul ba negeen si ñiy bàkkoo ko wax di tëb di tàll loxo yëpp mosuñu fi gagné daal kenn mosu fi gagné daal lu ñuy wax rek.